ndaw soosu noonu bokk ak Jalika lu muy dund en fait liñ ciy wax rek mooy que ne jigéen ñi ci boppam am nañ ci part de responsable ci dund yu métti yooyu ñuy dund dund seen biir léegi sëy parce que bëgg dëgg heure ménage bu taxee nga njëkkalante dugg ci loo xamul ëllëg génn ca dana la xaw a jafe lool danga fa dund lu métti te lu ñu war a xam mooy ku baax ki euh, sëy ku ci séentu bànneex jëloo décision am fa doom ju lay noppal ëllëg sëy ku la wax neex na dalay wax lu la neex sëy mënul neex parce que da ñëw di wut lu baax mu ngi mel ni ndongo daara bu dem bu nekk ci daara ja lu mu fa dund lu neex rek bénéfice la quoi dégg naa ne ñu naan ay potukaane kaanigaa na ci lemkee na ci kaw yooyu yëpp c'est faux gis nga suñ mag ñi daan sëy mënuñ leen a roy à cent pour cent parce que jamono changé na mais jigéen buy sëy da nga war di sóoraale lépp bépp jafe-jafe boo xam ne dan war naa dal nit ci àddunaam rek war nga ko sóoraale buñ jël lépp jox ko góor ñi donte bon nañ trop waaye nag jigéen ñi tamit mooy loolu waaw jigéen d'accord da nga ko war a yërëm mais ñoom it bu ñu dugg ci góor nañ ko xam nañ xam góor gi mooy kan waaw loolu c'est importance beneen ba mooy keneen il fallait que ñu ñu ñu ñu war a xam ne euh, ci jamono jiñ toll nii nii tembe a ah, ñun ñëpp suñu xel li ñu li jàpp mooy bari na si góor wala jigéen ñoo xamante ni jàppatuñ ne war nañoo mën a jur doom ju baax ankay war naa mën a nekk Cheikh Mourou Fala dafa wax ne jaww ji mi ngi fees dell ak i wàllu yi waaye jigéen ñu leen wàccee mooy problème bi pourquoi ñu war a dugal suñ bopp yi loolu jàpp télé yi téléphone yi ne moom lañuy ñuy sëyee c'est impossible mënul nekk jigéen buy sëy na nekk dof ci biir kër ga muy sëy na fa nekk dof voilà bu mu bëgg dara en kay sëy la parce que moo bëgg lu baax mu bëgg lu baax dañu xam dëgg moo bëgg lu baax faaw mu demee noonu ñoo ngi jégalu lu baax ci kàddu yi di di siyaaraat mbokk taali bi yëpp ah. euh, am kontaan bu baax a baax ci liggéey bi euh, ñu ngi jégalu lu baax a baax a baax a baax euh, wasalaamaaleykum